kon su ko defee dañuy jox euh, waa Mali dañuy dalal waa Mali euh, bokk na ci ñi fi teew sëriñ Maam Góor Dia sëriñ Bamba Diop sëriñ Abdou Khadir Mbow sëriñ Thierno Fall ak sëriñ Fallou Thiam mën naa ku ci jël kàddu ci ñoom mën naa ñëw ngir wax ci euh, kàddu Touba Mali gépp xam naa ñoom tamit lii dal Guinée dal na leen bu baax a baax taalibe yi ñooy jàmbaar bëgg sëriñ Touba waaye dëkk ba it bëri na ay jafe-jafe lool kon ñu ngi leen di ñaanal baax a baax ci darajey sëriñ bi it sunu borom gàttandu leen ci darajey xaadim rasul di siyaare bu baax a baax sunu kilifa bopp gi nga xam ne mooy sunu jëwriñ ci liggéey bi muy sëriñ Afi bu sa imaam di ko ñaanal bu baax sunu borom moom it dolli ko fan wu gudd lool te dolli ko ak wér ba liggéey bi mu jiite mu yàgg koo taxaw ci eh, mbaaxu yàlla ak ndimbalul sëriñ bi di siyaare bu baaxit Eh, jëwriñ yi nga xam ne ñooy ay ndawam ci liggéey bi suñ ci tuddee sëñ Abdou Lahad Mokhtar sëñ Abdou Lahad Mame Assa sëñ Abdou Lahad Moutalib sëñ Abdou Lahad Thierno ak sëñ Fallou Mbacke dana yóbbaale ñëpp di siyaare bu baaxit sëriñ Assane Diop mi nga xam ne eh, ni ñu koy waxee rek man ne na fu liggéey bi àgg rek ci diaspora bi eh, ak góor góorgóorloom ak bëggoom lu baax ak yéen a ñëpp jàmm ak yéen a ñu jëriñoo sëriñ bi. Euh, àggale na ko fa noo ngi koy siyaare bu baax a baax di siyaare baax sëñ ma Fëri Njaay mi ngeen tudd léegi nga xam ne ginnaaw bu liggéey bi duggee fële ca diwaanu Maliet moom it pas-pasam ak pëstéefam moo tax mu agsi fa noo ngi koy siyaare bu baax a baax kon teew nañu fi euh, teewal fi waa Mali gi yëpp rawatina ba Bamako euh, ànd fee it jëwri yi nga xam ne ñoo teewal ñi nga xam ne ñoo ngànk liggéey bi foofa Euh, sëriñ Mame Balla liggéey bi nga xam ne moo jiite liggéey bi ak sëriñ Mbaye Thiam moom yàlla def na téewuñu waaye ñi nga xam ne ñoo leen fi wutoot mën nañ leen fay mën nañ leen a wóotu muy sëriñ Abdoul Khadir Jili Mbaw mi nga xam ne moom mooy trésorier daayira ba foofa nga xam ne lépp lu ñu dajale moom moo koy saytu ba buñ ko soxlaa man cee jot euh, sëriñ euh, Thierno Fall mais it bokk ci ñi nga xam ne section yi nga xam ne ñoo nekk ci biir dëkk ba mu jiite fa bu am solo boo xam ne nii Euh, at mu nekk rek muy koor gi muy màggal yi dañ ci am taxawaay yu am am solo ànd ceeg sëriñ Pape ñoom ak ña fa nekk ñëpp ñu ci jëf tax ñu ci jëf jëf ju am solo ak taxawaay yu am am solo ak sëriñ Fallou Thiam mi nga xam ne moom it ci secrétaire daayira bi la bokk nga xam ne ñiy bind ak a saytu ca ñooñu la bokk ak man mii jël kàddu gi nga xam ne maay coordonné daayira bi foofu ca diwaanu Mali kon ñoo fi teew. ak Serigne Pape Diop mi nga xam ne moo fi jóge léegi nga xam ne moom mooy trésorier daayira Matlabul Fawzayni ba nga xam ne mooy daayira Serigne Touba ba daanaka moom teewaayam sax yóbbaale na ñëpp ndax bu teewee rek day mel ne mboolem taalibi Serigne Touba yi ci dëkk bi yëpp teew nañ kon loolu sedd na suñu xol lool kon teew nañ fi e, di sant yàlla bu baax it ci jataay wi e, di sant it bu baax ci kàddu yi ñu fi déggee muy kàddu yoo xam ne nii e, kàddu yi takkaat laxasaay la kàddu yi yokkaat positif la ci rapport yi nga xam ne sëñ Abdou Lahad jotal na ko muy loo xam ne ni kenn ku nekk boo ko déggee da nga xam ne boo delloo war ngaa gën a nàmmaat doxin bu baax a baax te xam ne lu bëri bari des na ni ma koy faral di waxee nag jumaa ji moom kenn du ko yalwaanal maanaam li ci war a dem ak mboolem liggéey sëñ Tuubaa yëpp rek lañ ci war a def murid di jaayanteeg sëñ tubaa ñoo ko ñoo ko war a def ndax ñoom ñoo jaayanteeg borom Tuubaa ci liggéeyal ko kon lépp loo xam bëgg-bëggu sëriñ bi la loola dañ caa war a taxaw bu baax a baax sëriñ bi nag liggéeyal ko moom tënkuwul ci jamono ju neex ak ju naqari wala wërsëgu yaatu gu yaatuwul wala yitte yu euh, sotteeg yu sottiwul moom lu mën a mel rek ni jaamu yàlla doone lu gàlle ci jullit bi liggéeyal sëriñ Tuubaa noonu la gàlle ci murit bi mu war koo mu war mu koo def kon sant nañ bu baax a baax ci teewaay bi ñu namaat pas-pas yi ak positif bi bu baax a baax ci liggéey bi nga xam ne mooy liggéey jumaa ji damay faral yoo xam ne sëriñ bi kat daa ñaan ay ñaan yoo xam ne nii yàlla defal na ko ba defal na ko ko ba noppi xam ne li mu wax ne ya umuni ridwaanu min kulli wijhatin wali wali xiida yum na zikri wal xatti wal xalam sama borom yàlla kat daf ma defal ay ngërëm yoo xam ne day bàyyi ko fu nekk te mi ngi ma ko defalee ci sama mbind mi nga xam ne moom lay joral jotal ci sallallahu alayhi wa sallam yooyu nag jumaa ji da ca bokk ak yeneen ak yeneen ndax kenn ko ne xam ne na ba mu nekkee ca Mayomba di fu mu nekk rek di fa jaamu suñu boroom def jàkk di fa jaamu suñu boroom ña ko fa yóbbu woon bokk na ca lañ ko doon xatal mooy bërëb boobee bu mu fa bu mu fa bu mu fa bu mu fa am li sa Moussa Ka wax ne e, fekkoon na fekkoon na Cheikh Bamba defoon fa jàkka fa penk fa penku quartier ga mu jublu Makka bu quartier gay daal di noddu ñuy maaj mu kabar noonu ya ko gedd xam ne ba muy wéy ba ba ba ba ba feeñoo ci xamal ko ne da nga tabax yaari jumaa ci réew ma te lee nga dellu yeesal géew ma da nga tabax jumaa ju rëy fa Jurbel te kenn du ko buddi kenn du julli nërmal da nga tabax jumaa ju rëy fa tuuba te lee nga dellu Daaru Salaam ak Touba. wajal binaa binaa binaa nuurin la daam waxoon ba mu laata dem buxur yi mooy ju mooy jumaay njaareem waaye wax firli man banaw binaa rafi wax firli man amarahum bihi jami mooy jumaay Touba wali jami man aanahum ala binaa alladi mooy. li ci gën a neexal sa mooy sëñ bi da cay def njëggalu yàlla ma am jumaa ji boo ciy liggéey mbaa ngay jàppale ñi ciy liggéey ak noo ci mën a jàppee dangay am njëggalu suñu borom te loola jàmm boo gis muy dox rek lool looloo ko fi baax ndax ñëpp ko yittewoo te it yitte yeeg ak yeneen yu mën a doon yëpp bu istixfaar wéeree loolu suñu borom jàppandal ko fa qul fa qultu istaghfir rabbikum innahu kaana xafaaran yursili sama aleykum midraaran ba mu ba mu yegg loolu istighfar la koy maye istighfar boobu nag sëriñ bi defal nañu ko ci sonn ci jumaa ji kon loolu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax te góorgóorluwaat ci bu bu bu bu bu bu bu baax a baax te xam ne liggéey la boo xam ne nii eh, maanaam waras na ko digg bu baax lii nag am na solo ndax jàllale nañ ko ci groupe yëpp kilifa yi mën koo dégg ñu ko dégguloon mën koo dégg ndax xam ne ñoo mel ne message bi daa des waaye ni ñu koy waxee li sëñ Muntaxa di wax ne sëñ bay tànnal boppam ñi ñi ciy liggéey loolu moom lu lu lu lu wér a wér la waaye nag ñiy wax moom waruñoo noppee wax ñiy leeralal waruñoo noppee leeral ndax comme leer ci sa bopp rek da nga xam ne amul benn am na ku ko wax léegi ci biir wax ji dama koy faral wax fële ca Mali man leen ginnaaw bu alxuraan xasida wéer wéyee gisuma lu gën a kawee liggéeyal sëñ Tuubaa ci jumaa ji loolu moom sama gis-gis la moom waaw ginnaaw bu alxuraan ak xasida wéer wéyee gisuma lu gën a kawee liggéeyal sëñ Tuubaa ci jumaa ji ndax daa bokk ci ndam yi nga xam ne ak tawféex yi nga xam ne suñu borom daf ko daf ko ko may ña jiitu woon ay kilifa def ca la nga xam ne daanaka jamono jii kenn du def lu nu toll ndax li alxuraan di wax suñu blaat ne afaman ussisa bunyaanu ala taqa ala ala ala taqwa ñi nga xam ne jumaa joom nañ koo taxaw taxawal ci ragal yàlla bari na lool ci àddina bi waaye jumaay Tuubaa de am na ci taxawaay boo xam ne nii ci moom rek lañ ko las ko mas a gisee moom lañ mas a gisee xàll aw yoon def ci ay alal yu bëree bëri ngir ngir bëgg a samp yàlla loolu ci ci jumaa Tuubaa yëg lañ ko lañ lañ ko lañ ko gisee tey bërëb la boo xam ne day dajale xoli jullit yi maanaam murit boo gis gisee ji muy dox boo na ko woon sa loxo ci jumaa ji dañ jox la àdduna ak ci biiram day làng te bu dee leneen ci Tuubaa bu ko neexee mën na caa yëlbal loxoom te du ko wàññi dara waaye koo ne woon yëlbal sa loxo ci jumaa ji danaan la xalaatuma ko bañ nañ ko ba sax ba ci ak ku agsi ci dëkk bi li mu njëkk def mooy wutali jumaa ja te liggéey la boo xam ne nii lam laaj ña ña ña ña amee woon coono bu coono yu njëkk ya matal nañu ko mooy taxa fexe nañ ba tabax bi taxaw lépp taxaw ñun nag liñ ci li ñu ci amee mooy fexe ba yorin wi ak maintenance bi ak li nga xam ne mooy jëmmal liggéey bi ak xurum beeg yi ci aju yëpp loolu moom lu yomb la waaw kon yaakaar naa la la metti woon te jafe a as-saabiquuna as-saabiquuna ulaa'ika al-muqarrabuuna ñoom def nañu ko kon ñun li ñu ci war rek mooy sàmm liggéey bi te it li fekk ñu ngi dund rek suñu diggante ak suñu Tuubaa di wér mboolem lu ñu jaayante ak suñu Tuubaa ci def ko loolu waruñu cee des ginnaaw ak lu jamono naqari naqari ak lu jamono tëree tëree war nañoo góorgóorlu ci loolu bu baax baax kon noo ngi sant bu baax a baax di gërëm bu baax a baax di sant waa Mali yëpp ci desuwaat ci turu Serigne Maam Balla mbaake mi nga xam ne ak soxna Maam Faati ñoom lañu ñu xoolee Serigne Touba foofu ca dëkk ba ak baay Tàkko Ndiaye bi nga xam ne moo jiite daayira Matlabul Fawzayni ba ak mboolem daayira Serigne Touba yëpp waaye mboolem section daayira mu xaddamaru ma yéen a ca dëkk ba it ndax bëri na quartier yoom boo boo fa demee fekk fa jëwriñ yu fa nekk xam naa dinaa leen tudd rek ngir bu ñu ko jàllee la ñu mën koo dégg xam ne war na ñoo yeesalaat seen seen seen i taxawaay gën a dëgëralaat seenu doxin ci liggéey bi lu mel ne boo demee Badalu Bugg sëñ Mor Talla Ndiaye ma nga fa euh, nekkal fa daayira bi lu mel ne boo demee Torokoro Bugg sëñ Thierno euh, Fall ma nga ne toog ànd fa ak sëñ Pape Sow ñoom soo demee euh, Badiala sëñ jiili Mbaw mi ak ase yi ñun ñoo ko ñoo ko séq di ko dox ak sëñ Fallou Thiam Euh, kon yeneen euh, gox yi nga xam ne accès gul ci ñoom nañ dégg liggéey bi bu baax a baax te xam ne wari su des ginnaaw wari su des ginnaaw wari des ginnaaw kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Euh, kaddu yi am na solo lool te matale wax dëgg yàlla te tegu na ci ci ci xam-xam jàngat yi mu def it am na solo. li nga wax moom lu am solo la jumaay Touba rek lañ tabax ab raay ngir tabax ko loolu lu mat a bàyyi xel la ci jamono ji suñ Fallu tamit moo waxoon ne moo gën a barkeel ci jumaa yi gën cee baax jumaa yi ci Afrique soowu jant waaw gën cee taaru seenub yaxangoog ba fumu tamit suñ Falloo ko waxoon kon loolu yemut fenn kon ñu ngi leen di sant bu baax di sant waa Mali yëpp dafay mel ne réew yooyu ñoo teewoon ci Afrique waaye am na ñaari kàddu rek moo des waaye am na yeneen réew yoo xam ne xam naa téewuñ waaye ci Afrique fu mel ne Togo ak fu mel ne Gabon ak fu mel ne Burkina Faso ak fu mel ne Ghana ak Nigeria yooyu réew am na ci ñu fa nekk ñoo xam ne léeg-léeg danañuy taxaw ci liggéey bi ak Cameroun Cameroun kon ñoo ñëpp it ñu ngi leen di soññ li ko sëriñ bi waxee it maanaa vidéo bi bu bu demee ci benn réew bu nekk rek am na ci solo ñu tisaare ko ci groupe yi daayira yi ba ñu teewutoon mën a yëg liggéey bi ndax ba léegi jàpp naa ne liggéeyu daayira Muxaddamatul Xidma communication bi des na bu gënee yaatu ñi ko xam jàpp naa ne danañ danañ ciy jëf bu baax a baax loolu nga wax tamit jëwriñ yi nga xam ne ñoo nekk ci gox yi ngir tamit euh, daayira bi mën a xam ne ñooñu nekkal ci réew yi ak ci gox yi tamit ci ndigalul jumaa ji lañ fa nekkee moo tax ñu wut màndarga yi màndarga yi nga xam ne képp koo xam ne euh, doon nga dara ji soññe ci liggéey bi ku ko amagut tamit ñu fexe ba ñu xamle leen ca fañ nekk ci gox bi moo xam ci quartier ci quartier ba lañ nekk wala ci gox bi wala ci bu ñu mën a nekk ngir suñ takkee màndargab jumaa ji képp kuy jëwrin te gis leen ñi ñëw ci ab daayira di soññee liggéey bi ñu xam ne liggéey bi dina agsi ci ci daayira bi waaw su ko defee loolu tamit dafay am solo ndax nit tamit soo ko dee liggéeyloo da nga koy jox jumtuwaay da nga koy jox màndarga boo xam boo xam ne dana ko donte ñoom ñëpp ñuñ xam ci pas-pas lañ akuk jub waaye lii ñun la war ngir tamit ñu joxe màndarga boo xam ne daa tax ñu gën a xam ne kii suñ ndaw la moo tax ñu def ko su ko defee ñi ko am amagut ñoom ñëpp nañ leeral dëkk yañ nekk seen jëwrin ya fa gën a ràññiku yor liggéey bi ngir ñu wutal leen ko